ni ma fi ñëwee neexuma xol laa fi ñëwee wallaahi parce que liñ jot a jógee nii xam nga. dafa métti ci xol quoi. man gëwma ñuy taxaw naan état bëgg na làmb ak bëggul làmb. Mhm. loolu lu mu wane la faalewul làmb. gars yi nañ bàyyi naxa sa xanda bi te wax gars yi li ñu war a def nañ ko def. Mhm. ñun ay ndaw lañ nekk ci réew mi gaayen amuñu leen lu ñuy représenté nañ suñu dëkk. fii lañ dëkk on est fier d'être sénégalaise. mais tey jii làmb français du ko defar comme ni ko kii waxee. Uh-huh. Angleterre du ko defar keneen du ko defar ñun ñoo koy defar te culture la fii la nekk. waaw de des années ñu toog bëriwuñ amuñu demuñu fenn xëyuñu gontuwuñ xëy on benn jour rek benn samba booy juge fee teg ay microbe mi mbëri lii mbëri laa mbëri laa dañu waxante dëgg quoi. dafa métti nañ ñu jàppale te bàyyi xas ñuy xas ñun ay doomu gor lañ. wallaahi ay doomu gor lañ. suñu yaay dañ koy bàyyi kër ga ñëw fii di dem fu ne gaañ di lijjanti Macky Sall jàppalewul kenn keneen ku fi ñëw tamit boppam la fi nekkal dañ jàppale nit ñi. politiciens waaw ñoom jàppale leen mi am li ñu am. ñu jàppale ñu làmb lañ bu ñu ko xeebal. Mhm. wasalaam.